abonnez-vous à notre chaîne Flash Media TV. kon mbokk yi ñuy topp ci seen chaîne bi di Flash Media tey nag ñu dikk ak yéen di wax ci mbir moo xam ne yaakaar naa ne boo ko tuddee ñëpp xam li nga ci jublu waaye ndax dëgg-dëgg ay njariñam ak i loram xam nañ ko niñ ko war a xamee loolu mooy suñu laajo tey. loolu jàllee nag dañuy dikk wax leen internet tuuti ci ay njariñam yi nga xam ne xam nañ ko ci te mën ko partager ak ñëpp. nañ ne jëfandikoo gi koy jëfandikoo. wuute na lool ci niñ koy jëfandikoo ku ci nekk ak la la ci yitteel te mu bari ay njariñ loolu waaye ñu ci bari sax njariñ loolu luñ ko gis lor di la ñuy ëpp lu ñuy gis maanaam dañ ci lor mais duñ ci jariñu lan moo waral loolu lépp. may gàttal man sama tontu dama koy tënk ci ñàkk xam waaye nag maa ngi xaar seeni tontu ci mbir moomu lan moo waral. lor ji ëpp njariñ li te njariñ li waroon a ëpp lool ji gannaaw loolu nag sama laaj bi ma lay laaj yow mi nga xam ne yaa ñuy topp ci chaîne bi mooy ndax internet yaa ngi ciy jariñu ak ndax yaa ngi ciy loru bu dee yaa ngi ci looru ci nan nga ciy loro ndax ñu mën koo moytu bu dee yaa ngi ci jariñu ci ban yoon nga ciy jariñoo ndax ñu mën cee topp ba mën cee eh, jariñoo ndax bu fekkee yaa ngi ciy loru it te xam ne yaa ngi ci loru ndax pare nga pour génn ci loor jooju wala déet loolu lépp bëgg nañ koo xam ci seeni commentaire incha allah li ma la mën a wax daal mooy mbir la moo xam ne ku ci nekk mën na ci jariñu waaye tamit mën na ci loru bu fekkee xamul ni mu koy jëfandikoo kiy jàng ak kiy liggéey ak ki nga xam ne deful ci ñaar yooyu benn ñoo ci yem. dama lay wax ne yow mi nga xam ne da ngay jàng mën na la jariñ yow mi nga xam ne dangay liggéey mën na la jariñ ba ci yow mi nga xam ne sax liggéeyoo jàngoo mën na la jariñ. kon da gis ne ku ci nekk boo jaaree ci fi nga war a jaar di nga ci jariñu te doo ci loru. kon ci loolu tey lañ bëgg a dikk waxtaan ci ak yéen dama lay wax ne yow mi nga xam ne dangay jàng ak lépp loo mën a jàng moo xam làkk ngay jàng wala xam-xam ngay jàng mën nga ci jariñu bépp xeetu làkk wala bépp xeetu xam-xam moo xam xam-xamu diine wala xam àddina xam nag ci xeeti xarala yi ban nga ci ëpp lay jëfandikoo mën nga ci jariñu mën nga ci jàngee bu baax a baax moo xam Facebook wala YouTube wala WhatsApp nga xam ne ñett yooyu bokk na ci yi nga xam ne moom lañ ëpp lu ñuy jëfandikoo ci sunu côté Facebook bi nga bëgg di jàngee soo demee di nga fay gis ay page wala ay groupe yoo xam ne maanaam domaine bi ngay jàng te bëgg ci yokk sa xam-xam di nga fekk ñoo xam ne ci loolu rek la ñuy wax benn mu doon xam-xamu diine wala mu doon ci xam-xamu àddina boo xam ne boo leen dee suivre yow di nga yokk sa xam-xam ci bërëb yooyu. bu dee ci whatsapp bi aussi noonu la demee dina am ñoo xam ne dañuy créer ay groupe yoo xam ne pour loolu rek moo koy tax a jóg mooy ku ci nekk domaine ba nga nekk. am ñoo xam ne loolu daf leen di ñor léegi nag ñu booloo doon benn groupe di jàngalante ku ci nekk boo amee loo xam ne euh, boo ko dugalee ci groupe ba ñëpp mën ci jariñu mu dugal ko loolu day am nga mën ci intégré daal ci bokk bu defee di ci mën di jariñu di ci jàng bu baax a baax. bu dee ci YouTube bi tamit noonu la demee am na ci ñoo xam ne seeni page loolu rek moo koy tax a jóg muy jàngale ak ci domaine boo bëgg a jàngee moo xam ci diine wala ci àddina ak bépp xam-xam boo bëgg a jàng wala bépp xeetu làkk boo xam ne bëgg nga ko jàng soo demee dinga gis koo xam ne dina la ci mën a teg ci yoon boo xam ne boo ci jaaree lépp li nga ci bëgg di nga ko ci mën a am. ak ci yeneen anam yoo xam ne mën nga ci jàngee bu baax a baax ba am ci li nga bëgg moo xam ci site la ak ci yeneen ak yeneen yeneen. ki nga xam ne sax day bëgg di liir lu baree bari te mënul di sëgg ci livre yi lu yàgg kooku dina jàpp ne ci moom tey bu duggoon ci YouTube bi wala yu mel noonu dina gis ñoo xam ne livre bi mu bëgg a liir. mën na gis koo xam ne da koy def son nga xam ne su day déglu rek du du sëgg ci livre du sonn. kon yaakaar naa yow mi nga xam ne yaay jàng bari na ay yoon yoo xam ne boo ci jaaree di ci mën a jariñu te doo ci am benn jafe bu dee yow mi nga xam ne yaay liggéey tamit mën nga ci jariñu ci anam yu baree bare nan ngay def bépp application bépp jumtukaay boo xam ne ay nit ñi ngi cay daje nga mën koo am maanaam mën nga cee tijji compte di ci dugal ay publication di ci publier moo xam image lay doon. wala ay wax wala ay bind nga man di ci jaar di ci def say publicité fekkente ne si da ngay jaay lu melni ay xeeti marchandise yo xam man mën nga mën nga koy photo wala nga diko vidéo su boba dang koy photo diko vidéo vidéo yu rafet image yu rafet yo xam kuko xol rek da koy bëgg nga afficher ci sa numéro partager ko ci réseau yoy nga xam nit ñi dañ ci dajé kenn man nako gis bëgg ko wala fexe ba jënd ko. wax na tamit nga def ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon kenn jëndul bu mu tax nga découragé wu ne lii amul njariñ déedéet yow continuer di ko def bu yàggee ñëpp danañ xam ne yow ci lii ngay yëngu ba ku ko soxla xelam mën a dem ci yow man laa jot. bu jaree réseau yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy ëpp ci li ñuy nekk lu ci mel ne ay YouTube Facebook yooyu nga xam ne ay Instagram ay Twitter bu ci nekk nga am ci sa compte boo xam ne pour liggéey lay doon. Ma'nam say image nga fay jël say marchandise di fa duggal di photo di fa duggal di publier bu jaree nga def lolu dang koy def ngir lan sa liggéey mën jëm ci kanam bépp liggéey bo mën def mo xam teyer nga wala ngay defarkatu robinet lu mën don rek man nga ci jariñu nan ngay def bu dee téyër nga del duggal say model nit ñi danañ ko gis bu rafété dinañ la wo bu fekkente da ngay defar ay robinet des fois sax bo amul liggéey yow defal sa benn vidéo nga wax ne robinet bu yàqu kat nii lañ koy defaree nii lañ koy defaree nga defal sa vidéo bu rafet nga dugal sa compte youtube bu yàggee nit ñi mën nañ di la siifur bu yàggee mën na man nit ñi danañ xam ne yow ci lii ngay liggéey te aussi man nga dem ba ci gañi xaalis ci youtube boobu dama joxe exemple nag ci liggéey yooyu rek mais bépp liggéey boo mën a nekk rek man nga di ko def ndax di nga ci am avantage su nit ñi dinañ xam ne yow yaa ci liggéey bi ba ku ci am soxla man laa woo di nga ci am avantage it réseau bi nga koy dugal bu dee YouTube boo demee ba am nombre lim lay laaj pour ñu mën la fay ñu mën di la fay ci vidéo yooyu nga xam ne yaa ngi koy dugal nit ñi di ci jariñu nga ciy jariñu kon ku ci nekk mën na ci jariñu moo xam jaaykatu parfum bi moo xam jaaykatu tissu bi moo xam tailleur bi moo xam mason bi ku ci nekk rek mën na ci jariñu bu baax a baax a baax moo xam da ngay tijji site boo xam ne yow ude bi dàll boo defar nga dugal ko fa wala nga dugal ko ci page wala yow jaaykatu parfum bi Euh, parfon boo am nga dugal ko ci sa site wala nga dugal ko ci say page wala jaaykatu tiisi bi noonu wala yow mason bi yow nangam ak nangam ku ci nekk rek liggéey bi ngay def man nga koy jàllale di ci jariñu ci anam yu baree baree bari mu des nag ku mujj ki nga xam ne moom la ñuy tëjee mooy ki nga xam ne jàngul liggéeyul kooku nan la ci mën a jariñoo bari na ci am njariñ boo xam ne ñëpp ñoo ci bokk yam maanaam kii jàng ëppalewu ci kii liggéey kii liggéey ëppalewu ci ki jàngul liggéeyul kon ñëpp ñoo ci bokk yam muy leen communication communication ci lan. exemple man maa ngi Touba yow yaa ngi Dakar léegi nga war ma wax wala man ma war laa wax dara loolu dafay jàppandi ci minute yi nga xam ne moom laa koy xalaatee ma mën a jël sama téléphone wala li nga xam ne mën naa cee communiquer ak yow wax la ko te du am benn jafe-jafe du am benn coono. ci xeeti événement yi nga xam ne bu njëkk ba woon pour nga siiwal ko fay ab rajo wala nga fay ab télé mu jàllale ko léegi da nga koy mën a siiwal ci anam yu baree bari yoo xam ne coono ba nga ci doon am dootoo ko ci am. ten yow mi nga xam ne liggéeyoo jàngoo mën nga ci jariñ nan nga ciy jariñoo mën nga soxla dara tu jar nga koy wëri duggal ci internet bi nga recherche ba gis ku ko am nga contacter ko jot ca wala boog nga tijji say page wala say site internet yoo xam ne da ngay partager ba mu am ay nombre d'abonnement yu baree bari bu ko defee. man ngay dem ci nit mu jox la marchandise am nga publicité ko mu fay la bu yàggee sax nga am cëb liggéey lii nag bokkoon na ci li nga xam ne indiwoon nañ ko fi ngir séddoo ko ak yéen ak yeneen i njariñ yoo xam ne xëy na lim ko ci benn video du yomb kon fii lañu yem ak yéen di leen wax rek ngeen abonné tey partage vidéo yi ngir mën a yombal liggéey bi